US jaayaa jaay Europe bi jaay Amérique football fii si biir bi nga xam ne Independence Stadium oh, um, bi oh, ah allah mu ngi nii rek dama ko gis te tax yaa ngi naay ñan ak ñan nga koy bëggee ñu ngi pour ñu suñu dëkk pour ñu baay wala suñu xale ci lopitaan yi taxaj macha allah jërëjëf aji sey jërëjëf yow man sa sa tanta la may sutana ma ko sutana jërëjëf waaw yéen a ko each ah ah waaw nag waa team America. waaw last year liñ fi def. lu ko raw nañ ko fi def tey man damaa daw xam nga man fu ma daw rek àddina bi. waaw yow yaa tudd naka. yaa sey di seen. yaa sey. waaw yaa sey ma ne ko yaa ngi naay. thank you so much. yaa sey yow pareel nga gaay. waaw ñu ngi ma seen morom sax. doo seen morom waa wax rek la ñuy def. wax rek xamuñ jëf. Ah, waaye su ma ñëwee rek ñu xam ne lépp dëgg la. lépp dëgg la moom la ñëpp doon xaar. waaw jërëjëf. All right. Uh, you're not going to oh, You're not just that. Wow. What that's for a club. You know, you're for a ah. ahanta ñu ni na waa Europe na mo dara ahanta ñoom nag ay dinañ la ñoo bëggee <laughs> ah Colombian. Wala na sila naka? Milpoy. Milpoy. Milpoy na naman. Dahil na po yun ang mga Amerika. Amerika. Amerika. Wala nila Gambia, nilang ko kami. Yep, nice. Wow. Wow. Naka,

Serigne su Serigne baa ngi nii. waaw Serigne nag moo la ñaanal moo la ñaanal. moo la Serigne a ngi nii Serigne Tapatuli waaye Serigne. léegi léegi laa génne xaluwa. léegi léegi laa génne xaluwa ñëw. ah Diagne ma ne ko Serigne Tapatuli li nee na lii lan la moo wane. ah Diagne waaw gars yaa ngi nii de gars yaa ngi ambiance. musu fee am de. musu fee am. macha allah lu mel nii ñu jógee Europe ñëw décembre bi ñëpp ñëw poti ñibi ren. daaw ak ren ñu ñëw ne dañoo defar lopitaan bii non lii mosu fee am koy bu ñaanal gars yi daal ñëpp ñu jógee Europe ñu ñaanal leen te pareeguñ next year ñu ngee ñëw suñ deewulee yal na ñu fi yàlla bàyyi dinañ toj Banjul ahan kay waaw waaye yow loon na ma cocoo invite naa la semester avenue gars yi dinañ jël sa nomba ñu defante ba mbaa. amul benn problème foo leen ma woo. man ak yow ay nduroo sax yow ñu leen nduroo la. nduroo waaw ma joxee gannaaw nga joxee gannaaw. waaw jeex na <laughs> ah, ma ne ko yéen a ko gis lii la la moo demee saa su ne ah su ko defee rek ah, ñu wanal leen li nga xam ne nag moo fi xew ah ñeneen yaa ngi tudd ne la fi nga xam ne nag mooy si kaw si kaw bi yoon bi gars yi ngeen fi de waa Europe yi ñu ne namoon ah, Gambia gars yi namoon Gambia ah kay Kalau loolu diga lah, dina ma neex axan kay ma ne ko axan kay waaye nañ papa ya. ah seet mi nga xam ne waaw ini deh, ah gaa yaa ngi nii ñoom Aku ñëw bégee waaw kooku aja Aziz lah. Aku Aziz lah, a ah, nuyu naa la danga delluwaat buum bi ci boy mooy ba ah tey tey danga bëgg a wan jaay ne yaa leen mun ah jaay waaw nooy bëggee naka ah, ñu ñëpp ay ah. kontaan te ñun ñëpp ñëw nañ bàjj loo xam ne lu réeroon ñu ñëpp ñu nekk xoolaat football bi ñu tey tey ba si biir biiri Ndiaye ñun ñëpp dañ ko on a léegi li ñu def jaloor yi pour Gambia soo Gambia si yëpp dafa firnde ñun Gambia si moo leen gën football war ngaa mën a biiri te tey jii bésam la ñun ñëpp dañu war a ñëw teewee ko soo man daal maa ngi kontaan bu baax soo boor soo boor la si yëpp ñëw nañ ñoom Mawone Ndiaye ñi nga gis ñu toog ñu ñëpp ay Amérique lañ jógee ñu jógee nañ ñu ñu jógee ñu rab ñu ñëpp ñu toog ñu teewee toog ñu mën a bés lii lu moo def si yow non bette kontaan tey dama kontaan bu baax a baax a baax. waa Amérique ak ñan ñoo mën. non waa waa Amérique ak Europe daw tey sax dañ daw ñëwul. soo ñoom dañ si ñun. ah ok dafa métti you know sedda bi ak ñoom seen waaye ngeen ñëw fii rek bëggee. ñëw ku nekk sa dëgg nga am. wala su ñëwee fii ñun ñëpp dañoo kontaan wala comme suñ leen gisee suñ yi suñ mbokk yi suñ doom yi suñ leen gisee rek dañoo kontaan. Ah, ah, moo tax mooy yëpp. waaw ah, waaw gis nga ñu ngi ñoo xam ne différence tey seen njëkk. booy si doo leen xamee si sa biir de parce que dafa mel ni yaa leen gën a yomb. tontu la am. <laughs> jeex na alors na nga def noo tudd. Mour Ndiaye laa tudd. naka. Mour Ndiaye Mour Ndiaye ah yow suñu nijaay nga sukkanaa. waaw na ma. waaw jeex na soo yow a ndigal a jógee nii Atlanta waaw yéen korea noonu ñu ne Atlanta waaw loolu neex na lu mën a am la bëggee ñëpp all right so Gambian la invite Semester Avenue ñu bëggee waaw bu boobaa team bi dinañ jël sa number jërëjëf Modou Ndiaye all right jërëjëf ah, dafa mel ne am na ku ñu ah nagam yaatura naga ibrahima ibrahima kujabi foo jógee américa ban state américa oh okay that, that's nice so noo you say bi ah maaj bi kay danaa neex rek you know what I'm saying nekkee nii na waaw ñu ngi dem round two ñan nga support ah, of course USA ana ci ahan kay ma ne ko ah. team US ma ne ko team USA ah, waa baana yow bii dinañ jël sa nama bi Mr Coulibaly invite la ci studio bi ñu ñëw defan debam naay Gambie yéen a ko moom Gambian Talents ñoo lay bëggee jërëjëf ah bu boobaa mbokk yi nen daw dem seeti ji li nga xam ne nag mooy ambiance loos ah Jariñ la ba jole ngeen fii ci fule na ambiance waaw dina neex ah ak lesin la bi luy neen la ñu ne ko gis te ga waaw nen xool yéen ñi nga xam leen nag xam naa ne seen xelal nga mooy Gambia ah jamono ji daal ñun ñoo ko moom de <laughs> waaw nag si لن جاي الأول جاي يوم جاي أهلا أهلا أهلا أنا جسم أنت أنا لك من أنا سافرني ها نيجي كيشة نيجي أميان نيجي جيجي نيجي مهاو Nanaka. Wani ne ga. Thank you.

Aagay, aagay. Malaki yun ang gagawin. Ana, ana, nini, ana, nini mo na siyo. Wow. Alina, dito together, you mean it, because man, I'm not having how many one. Naman niyo bilang. Si WhatsApp ko on Facebook. So, mang na the first time. So, dito ka nek, you have Gambia, let together. pera. Yung ko Ana. yaa baax ma ne ko kooku koy aana suñu suñu boppa yéen a ko gis dama ne beneen sama saa yi nii de ah naka nga def yaay baay moom la airport ba waaw naka am noo gisee ambiance bi tey waaw noo live and direct seen liggéey rafet na jërëjëf dinañ leen xaar Semester Avenue alright waaw yéen a gis yaa ngi diine li nga xam ne nag mooy jeesu ah nagam yow pare nga ah, yàgg naa pare yaa tudd naka nag kara kara kara Cissé ah yow suma kal nga man nag Cissé Tumbaay mooy loolu waaye kara yow loolu na ma ah win yow foo jógee team fan ah ahan kañ team US ba mu ngi nii Kara Ceesay foo jógee si US nag ah, ah kay loolu rafet na jërëjëf waay on oh, peut nagam. noo tudd ah. Maurice yow ñoo toppoon. ah, ah kay ah, ah jërëjëf. ara yéen a ko gis kenn desu biir Amérique kenn desu biir Europe ah lay man daa rek ci Gambian Talents ma ne ko noonu rek la moo demee yéen a ko gis naka naka noo tudd ah. nee na trop noo tudd man Néné Baro. Néné Néné fóon na ma. Mamu ma kenn. Namu ma kenn yéen laa ne moom te fekk si naa leen. jeex na.

dañ ko den paré lu nama si jàmb yo indi nañ ko tey jamono ji ak ah, bu boobaa rek si kanam tuuti dina leen bàyyee gars yi ñu wan leen lan moo fi am football bi fa mel ni start na de yéen a ko gis team Europe ak team America su ko defee ñu xool ñan ñooy win gars si biir fiil bi parce que ambiance neex Thank ambiance nice ah bu boobaa sama bro dama bàyyi la rek nga ànd ak gaay waaw kii dafa mel ne femme bi moo jaay rek kaa ñu xool andi na nga def yooyu ane yu baax naa ko tuddee laf cat waaw dafa laf cat pour team USA waaw man nag yaay diaspora bi yaay yi fi ñaase. yaay yi suma doom a ngi nii taxaw. waaw mu ngi nii Fatou ngi nii suma doom yi. Fatou yi Tooma la maa ngi nii. waaw dafa bëgg a wax ak ñun ñu ngi nii. waaw wax naa ba pare waaye ñoom seen bopp xam nañ ñu woon ñu ne dañ ma invite seen xaw ma lan ma ne ko damaa ñëw parce que ñoom Gambian Talents seen seen nit yi pas os. sama xarit la waaye duñ dee jubóo. jubóo jubóole naa leen bés bi tey. waaw jubóole naa leen parce que yaay si kondu waale. waaye meer yow li nga amee rafet na. waaw gis nga ko pour xale yi la pour njaboot gi la team USA. yaay suñu delloo. waaw team USA. koo jaay. waaw ku ci tax a ñaar rek da ngay amoon sax koo jaay. ñaata jiif si nee na. ah jërëjëf yàlla la jërëjëf. ah jërëjëf. waaw. wala banque ma mais léegi nii. nga jeex na mu ngi nii. ma ne ko mu ngi nii. ma ne ko mu ngi nii. ah ñu dem seeti ji jaay xool booy see jaay bi. jox leen seeti. indi leen ko laay ban daara ji. noonu nag la moo demee fii nii. ci Gambian Talents TV moom ngeen a seetaan yéen ñi nga xam ne nag jamono ji ñëwul leen holiday pour leen noo leen def. ma ini, ko ñaamee ñebee ngi ni gaa ngi rang de ah sis na nga def ba ñaamee ñebe baa ngay def ah waaw bii bii nu mu tuddee nag Seynabou Thiam macha allah yéen a ko ko ñaamee ñebe baa ngi ni ah diwtiir bi ma ne ko diwtiir bi yéen a ko gis waaye lii Gambia man maa alright ah yéen a ko gis moom mooy nekk ci wàllum kay de ahan cañ ma ne ko ahan cañ moom na dafa réer ku baax la yéen a ko gis jël na ko de ah jaay soo kuñ la cee jël waaw mu ngi nii ah kon nañu toon ñi nga xam ne ñoo amee suuf bi ñoo nekk nii suuf bi tamit dafa am de amul teel naa cee jël yow yaa ngi cee jël ah maa ngi lay jël noo ci ah, wax jaa bi am na mu ci war ci jago bu booba bu booba ala am ko nanga def noo tudd Cheikh Lo Cheikh Lo Lo ok ah foo jógee ban dëkk um Gambia here but I used to live in America so léegi nga ñëw seeti sa jaay play ñoom ñoo doon play ñoom ñu win ah, Gambia win Gambia win ñu mun jaay ñu waa Gambia bi waa noo tudda Bintu Bintu Caam ban dëkk nga jógee America Atlanta ah, ana waa Atlanta ñëpp a jóoru ah dina deelu nama naa leen lool ah waaye ñoo yaa nekk si eh, fufu bi fufu ñaata la Masha Allah yana da gaske ko mai dinto sa'ad lama jama na jina mu ame walum kuɗi na mu ne ka lo da nice la pui pui mo ke jare glada waaye buy ma ne ko buy invite na lang sa sama service ma ñëw ñu toog ñu waxtaan yaay dinañ jël sa namba xoromu nga rapet nga tubaar sa kala, macha sa gannaaw na sa kanam baax na yow loo na ma nawuloo dara joxeel gannaaw gaay xool ah ah nawuloo te jox mooy buy bi ne waaw na dina ñu neex ma ne ko loolu dina

koor nekk jigéen ji mun boo paal jigéen ji mun góoram invite nañ sa ci kasi Semester Avenue mu def ak ñun Bamba invite nañ la yow nga ñëw baby girl yow da nga ñëw si diaspora programme you okay yes all right yéen a ko gis fu mu nekk nag gars yi dina xaw a relax tuuti xam ne dañuy noppaleku ah ñu yeen si kaw ñu yeen si suuf ah mi ngeen ñu xool keneen moom nga selfie balaa nga yóbbu la yow yaa tudd naka awa awa baaya awa yow loolu na ma yow nice nga di macha allah naka nga koo sa bool ah, ah na ma ne ko jeex na maa yow di nga ah. raw na bu yomb bi rek. yow bëgguloo kenn ku laal sa tànk bi. yomb yomb ah ngeen kon jeex na. alright sis naka noo tudda. Jeynaba Jeynaba Thiam. Jeynaba foo jógee. Siyaaro ah yow ak suñu boos yéen a dëkk waaw kon jeex na Jeynaba noo gisee euh, programme bi tey. am na solo am na solo macha leen di play. enjoy na sa bopp ah. waaw mu ngi ci kaw please. ma ne ko mën nañu bëggal. dañooy bëggee. total ambiance yéen ñi nga xam ne jamono ji ñëw nañu ko déglu yéen a ngi nama li nga xam ne nag mooy euh, Gambia mu nekk loo xam ne lu nice la nekk loo xam ne. lu yoo ñaan rek bul jàppante bi please. waaw dafa mel ni kii oncle coach Fassamba Jaw la de ah moom nag jamono ji bàyyiwut ko gaay Uncle Coach Pa Samba Diaw. asalaamaaleykum su ko neen. Gambia Gambia Talent Radio. waaw yaa ngi fine. fine fine naka. yaa ngi ok. yes tey kenn xaame wu la si paa yi de yow ñu ngi la gis. ak seen yéen man la man Moussa Diagne. <laughs> Moussa Diagne ne yaay paa bi loolu la ma wax. non non non gis nga ko. ah gisuma ko fii yëg man hey. waaw ñu xamee la coach Pa Samba Jaw tey kan mooy coach bi fii. man maay coach euh, bi delloo na tey delloo paaka sa waaw. it's very nice to be here fii laa la taxaw di coach football fii. Mm-hmm. you know so it's a it's a good feeling. even though a waaw waaye yow nga jógee Amérique nga ne yaa ngi ñëw euh, fii mbaa nga fiyaa si sa coach. America like what is all over there because I want America to win. So Why is Corpo good? Because we, everything that we raise takes you is going to uh, Dibele Hospital. And the guy is the place we play today, Europe, America, let's say Puneka Halis. And that money was just in Jersey, the rest of the money them towards uh, the project we have the Mobile So it's a good feeling, definitely, to be home and then to give back. Inshallah. Gambia Hey, Gambia is the place to be. You know, bu leen kenn yaakaar seen This place is nice. People are free, people are nice, they are all smiling. It's a nice place. Nana Danso, mi ne kooku coach la. Wow. I want everybody who knows this year so come on in. You want next year, you will like it. This is a, this is a great country. ñu laa xaar ci Semester Avenue. ñu dalalaat la. waaw dinaa ñëw bu mag bi. ak kasa ma ne ko yaaba kooku si moom kuli boobu la ñu bàyyi ko mu dem coach. ak waaw ah kon nag mbokk yi yéen a ko ah, bu boobaa noonu la ñu ko. yes ah, mbokk yi yéen a ko gis ah mu nekk loo xam ne na ice neex ah rek nga wanal ñu si bool maa ji su ko defee gars yi gis ko si kaw ñu xam lan moo fa nekk fii ci li mu ñëwaat ok donc à sama mbokk yi bi waaw dafa mel ni dama gis ki nga xam li nga xam ne nag man la moo def jamono jii kooku Paa Ous la moom it mu ngi maaj rek waa Paa Ous yow sooy wanal gars yi liggéey bi nga xam ne moo fi xew ñu ne ñu interview la rek. waaw gis ngeen ko Paa Ousseyn ñu nii Paa Ousseyn ñu ne si t-shirt bi moom dafa def lan event waaw moom mooy event coordinator bi di event organizer macha Paa Ousseyn naka nga def. fine. Paa Ousseyn noo gisee nii. well ah. on a the whole world tey jii ngay is believing waxoon nañ nañ ko def waxoon nañ ne Yeah. ne te tey ñëpp a ngi ñëpp a ngi kontaan ñëpp a ngi kaf ñëpp a ngi ree everybody else suñ paree nañ am more events xale yi ñu ngi foofee ne so I'm I'm very uh, I'm not surprised ne it's a success again but we have a disappointment and I will say it out for the whole world to see. What's the disappointment? They might be warned me and we sent uh, a letter to the government officers, Kenya from the government. but we write an invitation to the First Lady. She didn't turn up. Instead, she went to a party. So the First Lady, mgeni nek di boss about lapitan, lapitan, manafa yi lapitan, waaye dima wone wu ko. Te fiñ dem demba difa difa defar la li fa nekk moo ko And she sent some consultants. Yo, they what you defar nañ ko right now, ñu ko open right now. The nice thing to do was to pass and give a speech that would have Gambia. But instead she went to a party. Party will have it's not of any impact to the Gambian population. So we are very disappointed that this Gambian government does not care about diaspora's effort. Or if they, they, if they do care, they don't recognize our effort. We don't want your money, we don't want your support, but what we want more is um, we, we, we, we, we have the right to demand a fair policy. We nga xam is a policy for the Gambian. So mooy ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲ ರಾಜ್ಯ ಮನ ಜಿಗ್ನೆಂಕ ಬಾಯ್ಕಿ ಮುಟ ಫುಲಿಗೆ ಪಸಿ ಮೊನ್ನೆ ವಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲಿ ke ba ma bala nga wonal ñu xale yi soo ñu wonee xale yi nga demaat ci kaw ñu gis waaw kon nag mbokk yi comme nu ma leen ko waxee woon rek waaw ñu ànd ak yéen tey mooy event bi nga xamante ne moom mooy diaspora yi ñun ñoo am match USA versus um, Europe la ngay wax soo ñu ñoo nekk bench bi right now ñu nekk ni mun naa leen a woon xale yi ma woon leen nag xale yi fuñ nekk football yi nak, dañ ñëw ku nekk dafa andi ñeneen dañ andi seen famille seen famille yaa nekk nii di di foye fii nii am naa xam nañ ne gars dañ bañ seen famille si wéet so gars dañ andi seen famille pour ñu ñëw foye fii nii ñeneen xale ñu ngi nii ma laajte xale rek booy nag nga tudda ah Bonua. Bonua yo fo joge ko? Fan? kunda. Oke, okay, Bonua yo nga ñow pour support. Ha? Ban tim nga support Bonua? Amerika. Ana papa American la moda. Amerika la joge. Wa je ya Bonua. Yo no tuda? No, I'm, Heather now. What's your name? Madlamin. Madlamin. Madlamin, where are you coming from? I'm coming from Jamaica. You're coming from Jamaica. Yeah. So Mulami, which of the team do you support? Um, Europe. You support Europe? Yeah. Oh, are you trying to make me <laughs> laugh or what? No. Is it that you support uh, Europe because of your father is a European? Yeah. Your father is European. Yeah. What's your father's name? Usman. Pa Usman. Pa Usman? Cham. Cham. Is he right now playing in the field? No. Okay. He's at the bench. Yeah. Okay, thank you very much, <laughs> Madlami. <laughs> okay. like right now ñu dem nag ma woon leen fans yi fu gaa yi nekk nag moo nekk si kaw. fans yi ñu ngi fi bëri ñu nga xamante ñu ngi jógee si diaspora bi dañ ñëw pour support. ñii ñu ngi ñëw pour ñeneen ñu ngi ñëw pour support USA ñeneen ñu ngi ñëw pour support Europe kon nag tey mbir bi fii naxuma lool gars fu nekk nii ñu ma egg ak rek ma woon leen nag ñooy fans yi ñoo nekk fans ñoo nekk diaspora club bi right now fu ma dugg nii ci segment bi fii moo nekk diaspora club asalaamaaleykum suma sista na ah, naka nga tudda ah Sukay Mbey Sukay Mbey yow noo gisee programme bi ah ah dafa mel ni su neex na trop yow léegi ban team nga support Amérique nga jógee ko ah mbaa amuloo jëkkëri américain nag moo tax nga bëgg a support américain foofu nga nekk waa jërëjëf ma woon leen nag ñeneen ñi nga xamante ne ñooy fans yi américain yi tey fu mu nekk nii dafa mel ni kii moom rasta la def tey moom kañ tey fii toj <laughs> suma sista noo tudda Hadi Ndey Hadi Ndey Hadi yow foo jógee ko Ah? Oke, sehari nga anda lagi oban tim sokot? Amerika. Ah, ndey hari ini ñep gis nañ nak tay kontan nak. Assalamualaikum, alaykum sama sista na nga Ah, tur bin eh binak? F Jam. F Jam. F Jam way yow dafa Wow. contant nga de. Waaw waaw parce US dal mom si ko kanam rek. Waaw si Wow, si kanam. Waaw da ngeen di ñep de. Yow or na <laughs> Nogi se program nak jam. it's nicely natural. Okay. Uh, this is the first time, but it's very interesting. Okay, it's yeah. very interesting. Yo, one team nga support lagi. US. USA. Uh -huh. Yang you, USA. Mbaam lo jekeri USA. <laughs> man suma bopp waa US la okay, <laughs> kon jërëjëf ah, ah. mbokk yi ñi ñoo nek ñi nga xamantene ñu tuti ñu jot am pour interview duñ leen mëna won lepp Nak. waye waaye mun nañ leen gaay seen kanam yi mu ngi na gis gaay ñi ñoy fancy USA kon nag ma demee si beneen boor bi moo woon leen ñoo nekk fan si Europe yi Abdoulaye Cissé ñu ngi lay bëggee bu baax a baax waaw gis ngeen gaay yi ñi ñoo nekk fan si USA ñi ñëpp fan si USA lañ léegi suñu tuuti ñu jot a interview nag ñoo ñëpp si fan si USA lañ bëgg jógee ok ñu dem si fan si Europe yi nag ah, gars ñu ngi nii toog ñoom tam white lañ solu waaye dafa mel ni ah, luñ bind si kanam niroowut waaw ñu jot interview nak, ñi nga xamante ne ñun leen njëkk a gis asalaamaaleykum suma si fan nga def yaa ngi fin sa tur bi ak sa sant nag Aïssat Aïssat xanaa da nga rus wax nag ah langara sawa wa elsa do fiida meni america ni ñofe gena gori de yiro bi ñofe ne den ok ok loolu dégg la waaye lu ma xaw a jaale mooy ñaar da ngeen sol a ah, white t-shirt so loolu moo xam moo xaw a confuse ok waaye gis naa ne nag bu america support loo de so noo gi ah ok noo gisee programme bi nag ah, kontaan nga ci bu baax yow léegi Europe nga support 100 ah cent ah mbaa amuloo jëkkër ki nga xamante Europe la jógee nak ah man Europe la jógee. yow sa si bopp Europe nga jógee kon jere jere ma amat interview ki nga xamante mom tam european la. waaw waaw. ma sista noo tudd. bébé koy. ah bébé koy. bébé koy. waaw waaw bébé koy yow ci ce programme bi. neex na. di sekontan. kontaan. di si di gërëm Gambien si. waaw di gërëm American si European yeah ñëw nañ def nañ ba di wax américain si nag ne tey dara du yomba dañ leen dóor bërëng leen si fiil bi ba pare komax ko de ñoo ko déggandoor mu ne dara du yomb dara du yomb européen yi ñu ne ñoom dinañ ko jël waaw ñun ñoo ko jël bu soobee yàlla waaw bu soobee yàlla la wax jërëjëf ma amaat keneen si interview bi salaamaaleykum suma sista na nga def ma am flow waaw kooku dafa flow sori kii kii ñu daw taw ne Europe laa parlel ñu taw ne Amérique laa parlel bàyyi ko toog lu wala wax loolu ñu ñeme wax yàlla daf ma leen seede ñoom ñëpp waaw loolu mooy dëgg kon gis ngeen friendship bu nekk seen diggante gis ngeen relationship bi waaw bàyyi ma egg kaw mu mun a waxtaan ak ñi ñi nga xamante ne ñoom ñooy européen bi ñi mooy gaa seen place seen tiisaat yi nag dañ xaw a niroo waaye fop ñoom ñu wax ñoom ñooy kan asalaamaaleykum waaw ok kooku mu ne team Europe baa ngi noonu si kaw bayam àgg si team Europe bi kon asalaamaaleykum suma sista na nga def. yow jógee ko. man Angleterre. Angleterre. waaw. moom mu ne Angleterre la jógee. léegi ñëpp team Europe lañ Angleterre ak Sweden ak Denmark ñëpp. ok nah. léegi yow ban team nga support si ñaari team yi. xanaa nah, suñu boos suñu Europe ko tax dara fii. Europe. waaw léegi yow foog nga ne Europe dina win. waaw waaw na sa rek. ah Gunak, foo foo ko wér. kon kon nañ ci yow bu baax jirgis nga xamante mau mungkin karena mau dapat kanam moom dafa mel ni bugg daa gis caméra bi yow xanaa sabot loo Amérique nag team Europe nga sabot wóor na la ne team Europe ne win inshallah noo gisee so ñu ngi mën a am na relationship bu neex bu gars amuñ ben problème gars dañ friendly dañ organize ni pour gars ñu mëna jibo ñi nga xamantene ci diaspora bi lañ jógee ñu jëf ak nga xamantene ki mom mom moom Europe la assalamu alaykum na def ah lan moy sa tour ak sa sant Adam jay Adam jay yow fo jógee ko ah maa ngi bakka waaye suma moo dëgg Norvège ok sa ok sa sta mo jógee waaw loolu laa gis gis naa ne nag yow nag soppoon nga Europe bu baax de. waaw ba wóor na la nag Europe dinañ win tey. waaw incha allah ñu ngi leen bëgg ku nga xam flag bi la yore <laughs> moom dafa mel ne bëgg da wax waaye <laughs> kon nag mënuloo wax li nga yore flag bi nag. flag bi dama ñëw pour support. da léegi noo gisee programme bi. de neex na de. enjoying yang ko so yung nyari kini bang ban nga foog mooy wi man Angleterre la Angleterre na sa tour dëgg la yow waay wax loo ñu sa tour nag man dama laa daba daba ko déggandoor daba jaaju mu ne Angleterre ñooy wi iwi. amat nga xamante ne mooy suñu gentleman ni. suñu gentleman bi suma bro noo tudda David ah nyo ko déggandoor mu muna David David sa swag ni Montera fin na di mu ko xelpal nii rek. lii yëpp well just si Christmas as festivities si la bokk. ok ndaxte lii la fa neex torop. waaw xam nga am suñ suñ friends family members yi ñu tukki woon ñu ngi ñëw Gambia at least Christmas bi rek. waaw def lu neex waaw loolu dëgg la kon yow tey ñëw nga si bi nga xamante ne mooy Diaspora Club ah ñu ngi am football match léegi yow loo gisee loolu noo gisee loolu. match bi yëpp li foofu la pour ñu reetaan parce que soo bàyyee xel ñu yëpp ñu ngi jóge fu sori te gars ñi yaakaar ci wanasanga so ni léegi is holiday period mu nga xamante ne gars war a ñëwaat seen seen seen réew fu gaay juddu bu gaay célébrer ak Gambia ñu wone ne waa ak suñu liggéey bi yëpp waaye mën na ñëw boole si caaxaan ak reetaan ak fo te pour man lii dafa important trop kon nag ñi ñoo ko déggandoor jërëjëf waay bro suñ gentleman bi wax na lépp nag ñii nag ñooy fans Europe ñoom ñu nekk nii ñoom ñëpp dañ ñoo pour ah, support ñi nga xamante ne ñooy seen ah, team bi bu nga xamante ne mooy Europe Europe against America la gaay wax nag tey nag kon tey fii mu xumba right now gaa ñi ngi commencé comme match bi commencé na bu yàgg waaye nag duñ leen mën a woon match bi nag fekke wonuñ la ñu lañ seetaan kon nag ma wàcc ak yéen euh, ma ma wàcc ak yéen ñu mun a seetaan lii li nga xamante ne mooy maaj bi right now nag ngeen maamee tuuti ma wàcc ngeen mun a seetaan match bi bu leen pousse benn ba benn euh, bi mooy Gambian Talents TV man la nag seen naataango Mohamed Keba Diatta war nga engagé nag bu baax de. man ah. ah man nekk ah, nekk ma fenn. non man de nekk ma fenn dem naa si ñëpp ah. soo ñëpp laa support. waaw ñëpp laa support. <laughs> waaw loolu dëgg la léegi noo gisee programme bi nag. waaw. waaw loolu mooy.

Uh, alright now guys, gagawin ng half time ligi-ligi lakay proof nag mambapi kon nag dinaleen jëlal fa nga xamante ne ay ñoom foofu la gay nekk di jëlee half time mbaɗigol comme dalta ka faali ñamen ron ɓe ah, bakaw independent stadium le ɗitilola ah, on the 27th december mbe je ah, dalilo min wolentugo nata program la mi mu a diaspora club ti yemi organize yewo organize dum america ani europe le tema mum continent flati mbadi ngol na molle bi je mi yalon koy botanan um, america le dol bot kabo nan europe le ni organize le ko pour ka baɗi ya coki ñindum akata buubate mi yalon ko amma momo jakal bar ay mol sewondi le koy dum e yi programme o fana organise le ye badiya to am ye maforo fana kamana kamana bantala bangodo kana na ko ah, na ji bangodo woro mbali mo atole nge ñindum ñindum am ah, usa la timol ni muy la fansel le ka majo ni sa kanya dado majo lo ko majo ko no itu dara dara true olela jero si tata wala bare pura koy na itol fongo ni ninka majo ni tara nya di lo assalamu alaikum ma bro na na de ah satu di asas andre ba ba bacili bacili bacili bacili

waa ñaata ngeen deme um, zero zero. ñu ngi demee zero zero. half time. half bi ngeen am ni so match bi yow foo noo noo ko fogee presse si ñan la gën a nekk. Ah, yéen a a mbaa paa du yow team boo nekk di play moo tax nag ngay wax loolu. du loolu. waa jërëjëf jërëjëf Paa ah coach ah? ok kon nag day a ah, interview nga xamante ne mooy coach asalaamaaleykum coach coach Paa coach naam Paa coach Paco, you know this is a team Minaka. One small team, they are wonderful. They are wonderful. They are wonderful. Definitely, I have a good team. Okay. Yeah, and they can deliver because eh, eh, during the first half they missed three goals, okay. which should have been in the, in, behind the net. Okay. But we'll make sure that in the second half we'll score those goals. Okay. Yes. So, uh, do you think that uh, your players will have another chance like they have earlier? Of course, yes. Of because course. it's in them. Okay. Yeah. state of preparedness is already there. It's already so there. it's just to finish. Okay. You know, by giving a very good shot okay. at goal. Okay. For one more question. Uh, were ahead. your players training before before the match? We only train one in a week. That is only Sunday yeah. in the morning. After that, you know, everybody has to go back to work. You know, to make sure that you know by next coming Sunday we meet at the uh, training ground and then perform our training. Okay. And then go home. Okay. Thank you very much. You're pa. most welcome, <laughs> Mr. Journalist. Yeah. Gambia Talents TV. Gambia Talents TV. Talents TV. yeah. yeah. yeah wish you well. Um, kooku mooy ki nga xamante ne mooy Ba moom moo nekk gars seen coach bi. jot naa ko interview nag lu wax mooy um, ñoom seen team bi nag dañoo teg ñi nga xamante ne mooy di opponent team dañ leen di teg pression moom nag lu mu wax ne wax uh, wax wax na ne uh, teamam bi ñoom ñu ngi fit daañu de dañ de am um, training only Sunday once mooy once in a week. Then nagmagira interview nyo nga haman rin yun naka the, uh, the other side of the nyo nga haman rin yun yun naka the uh, ah, send opponents nyo nga haman rin yun yun naka the computer Usman Bob uh, ah, Degala Gambia Nice Nyep Hamling Lulu um, Sana how is the scores uh, we are, there on 0-0 right now assalamu alaikum suma brother na nga ah lépp ñu ba. Muhammad Keba Mohamed Keba waaw from Gambian talent TV Okay. Okay. la mooy sa tur ak sa nak tur bu nekk man ah Karasisi. Karasisi. Kara yo yow team tim bina kalau sudah mau si boppam team oh, USA Tim USA team USA eh, gis naa ne nag tey yéen a ngi tànga de. waaw ah, non of course foog ngeen ñëw ah, nag lu mu wax nag mu ne nag gaa ñu ngi leen di teg pression de. Ah. waaw. waaw noo bi grawul. responsable mën ngaa am joxe pression. second half bi mu cay. waaw te loolu mooy xew si. Mm. yaa ngi récolté. ok di <laughs> nga gis malaw. waaw loolu dëgg la moom wax na li nga xamante ne gentleman bi. <laughs> na nga def bro maa ngi nii rek eh, lan mooy sa bu neex ak sa eh, sang seka ah sang seka sang seka sang seka lan mooy sa rôle si biir film bi midfield midfield yes ok sang seka you know gisee match bi I'm Um, so far, so good. Um, a little bit hesitating um, passing the ball, but they want to be very patient. And also, Lumosi Bugayoka Moy, um, so patient, Eric, we'll get what we're looking for dañ hawa a yàgg gi tuuti dañ xaw a yàgg waaye xam naa ne ku wax na loolu ba pare demee second half I believe ne dinañ change attitude will ka kan mooy seen coach anam Pa Samba Diaw is the Pa Samba yes Pa Samba ok Pa Samba ok semua bro ada mugia daw. Assalamu alaikum bro nang ada. Jaho nang ada. Nang ini ada jama re. Um no to the access center. Ber talo. Ber? Talo. Biar talo. Iya. Um ber talo yo ban uh, role ngade play si midfield. Midfield. Iya. Okay. Abi nama strike. Yo yo strike ngane kali play. Iya. Nyara gol nga score nak. No score ngumana. Score gol dara. Zero ngenden. Nyara shot on target nga am. I got two. Huh? Just two. Two. Yes. Uh, so hoping the second half danga improve. Do Yeah, yeah, definitely we're gonna win. Okay, we are we are hoping to see that those improvements. Definitely. Okay, so naka nga gisee relations bi nga xamantene moy Europe ak America. it's good though. It's, it's good. good. Definitely. Okay. And this is very good for Gambians who cannot afford the health sector. Okay. So we're doing our best, you know, support our Gambians. Mm. So definitely, we're doing good. We're doing good, honestly. Okay. Yeah. kon nag ñun ñoo ko déggandoor moom mu ne gaañu gi ñu ngee def li nga xamante ne ah, mooy seen kattan pour ñu mun a dimbale gars yi Gambia yi kon nag yow léegi match bi noo ko gisee yow fan mooy sa ñan ñu am high probability that they will win I'll say Sarakunda, yeah, because they won the first game. Ah, yeah, they won the first game. Yes. Is it that um, you guys were not training before? Mm, mm, sort of, sort of. Mm. A bit rusty though, sort of. Okay. <laughs> but we did our best, honestly. We did our best, your best. Okay, we are hoping to see that. Uh, thank you very much. Kooku nga xamante gentleman Right now ñu ngi um, what oote waat lu uh, nga xamante um, second half bi. ñi ngeen di gis noonu ñoom ñooy team USA 2018 um, diaspora ñoom nag ñu ngi ñëw start um, li nga xamante ne mooy ma um, eh, ñi ngi ñëw continue ñu ngi ñëw proceed rada si li nga xamante ne mooy match bi right now ñu ne zéro zéro si la gars yi waaye nag ah, si tuuti nag sama mbokk yi comme ni ma leen ko dee waxee rek wa Gambian Talent TV ñu ñoo leen di andi lepp li nga xamantene li kenn wut dina la won di si biir ak ci biti leen ko won fi ngeen ko mëna amé ci si Gambian Talent TV man na nak seen natango mohammed Keba jata kon nak ñu sétan li nga xamantene moy mooy maaj bi mu ngee door commencer am ki ngeen di gis nonu mom moy gol si fabi mu ngee ñew mu dem gasen ñom ñoy ah, team yu waaw ñoom ñëpp si diaspora bi lañ jëm comme si ñuma ma interview lu gaay wax mooy ñoom dañ créer lii pour fond pour jàppale gaay Gambia yi kon nag ñu ah, ngi leen di ah, ah, sant si loolu di leen gërëm bu baax a baax ki nga xamante ne mooy Ousmane Bopp mu ne Gambia nice dëgg Gambia nice jërëjëf waaye Ousmane Bopp Mariama Sow Touré jërëjëf Mariama Sow Touré Cemi Diallo nag mu ne moom team Europe la support Semi Jallow amul benn problème nice guys Bah Moussa jërëjëf waay Dibi Domi Dominique thank you very much Dibi Dominique um, bi nag na am Europe ñu amee bool bi oh Europe miss nañ li nga xamante ne mooy shot on target right now Europe miss nañ li nga xamante ne mooy shot on target nga xamante ne mooy seen midfield bi mu ngi complain mu ne euh, team Europe amuñ half back però. Pastor Amune next year they are coming in Germany. Oh my God. Europe. Pass it to the midfielder. Back to the halfback. Back to the halfback. Europe with the ball back to the flank. That is the captain. It's a two pass. Back to the halfback of America. And then pass it to the number 10 of America. Sorry, that's a foul. Of course. a goal. That's a goal by America. Americans have won, and then Europe zero. Right now, Ngaman Danem. Mumbai American bi. Kooku ngeen di gis noonu moom Moscow goal bi. goal bi America number 20 bi moom moo score? score uh, nice shot on target by the Europeans jokkoo suma naataango bi moom ñëw na mu ne daf may jàppale. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nii fii si Independence Stadium bi ba gis ngeen nag tey moom Dias Club Diaspora Club bi ñoo fi am football match gis ngeen um, Europe la America so it's very nice. dégg nga it's a nice thing this is Gambia Gambia we are all one. So it's nice to have this kind of things. And it, I think it's the first time in the Gambia. The Monica first time you organize a thing like this. So just you know, by and then set and match this. And I was saying it's like um, uh, be more political fekkee di seetaan ne nekkuloo fii nii sax in the diaspora yaa ngi seetaan lii nii something else it's like you're at home so gis ngeen Europe la ak American si so xaw ma nag ñan ñooy wiin nag tey because gis naa ne ñoom ñëpp ñu ngi play very nice so I don't know yéen a gis lii de mbokk gis nga

ñu ngi sol nag di seetaan ambiance bi mu ngi neex ñu nga bëgg a dee it's like they enjoying it very very much ñu ko over enjoy sax so ma bàyyi leen ngeen seetaan match bi it's like something went wrong xaw ma dafa am ku def injury I don't know because gars they know ñëw Say, mom, um, moom african bi si lañ bëgg a lekk mu ngi nii gis ngeen lii mooy fufu bi fufu baa ngi nii yéen a ngi gis seen um, drinks you have the I think you have naan here Wow, different foods yi bari nag tey nag ñu ngi kër they enjoying very very much gis ngeen ambiance bi gaan nga enjoy seen boppa bu baax sax so it's like uh, football mom You get poos a fee jox ma nit ma mos di waaw ñu ne Gambian Talents TV waaw waaw mbaat waaw sooy dem na nga yóbbaaleel paawus ok boo na gis ngeen naan buur bi naan buur bi ñu ne mooy vitamine A to Z yéen gis lii ndeysaan xam naa ñu nekk si diaspora bi nag ñu nama naan buur bi nag bi bëgg dee lii moom waaw waaw gis nga nga ko gis nga moom lu mel ni dafa ric sax ah, dafa ric moom am na banaana waaw loolu la kay dëgg la soo ma waxee ne vitamine A to Z dinaa ko góob yow naa nga tudda Binta Jaadama yow foo jógee Angleterre ok naa nga gisee programme bi tey kontaan nag ki mu ne mu ngi laa nuyu bu baax a baax a baax kontaan nañ torop si seen initiative bii nii because lii dina tax sa ñu bëri ñoo xamante ne si diaspora bi mu génn leen a itteel nag pour ñu def yoo xamante ne dafa so it's like li ngeen a jaay nii fond bi soo leen ko ngeen koo jëlaat yóbbu ko si lopitaan bi waar gis nga it's very good mbokk nag yéen a gis lii jërëjëf sista jërëjëf ah loolu la de waaw ni ku nekk sa dëkk nga am this is Gambia even soo leen fa nekkee sa waaye Gambia moo nekk ah, waaye non dëgg la jëy ok baax na incha allah di ngeen ñu fa gis nag waaw mbokk yi yéen a dégg loolu génn si leen nag ngeen dem support gars yi diaspora bi kuy jaay fii. moo koy gis ngeen ba tey ñu fii nii. Um, suma sista bi na nga def na nga yaa nekk fii nii. yoo lay jaay nii. yow sa fufu niroo na fufu bu neex de mun nañoo gis fufu bi nu mel yéen gis fufu bi yéen gis fufu bi gis ngeen diwtiir bi ci kaw kaani yuñ tumal nii ah fufu moom dina neex ok yow foo jógee Atlanta America ok um, yow fan nga nekk di support nag fan nga support ah, USA of course <laughs> ne yow seen gars yi dinañ win tey dinañ win wax de waaw ok time will tell su ko defee maa ngi si jee xam nga dinañ Okay, that's very good. Ten for bi dafa mel ni waaw it's good. hey, tey gis ngeen ambiance baa you need it? yéen a gis sleep. gis nga lii Amérique la gaa ngi nii nag di support seen gaa with so much ambiance ci biir yéen a gis lii ok gis ngeen gis ngeen supporter si ni américain si ñoom ñooy wiin soo xaw ma naka la faa demee noonu nag waaye yéen a gis lii suma gis ngeen gis ngeen ambiance bi gis ngeen gaa ngi enjoy seen very very well Endjoy Magic. ñoom ñu ne ñoom ñooy win soo xaw ma maaj bi naka la moo eenee waaye xam nga football moom doo mën a déterminer um, maaj bi jeexul doo mën wax kan moo win soo ñu bàyyi rek ngeen seetaan maaj bi. America, di sama xarit. yow noo tudd ah. waaw sama xarit yow foo jógee. ku yow maaj bi noo ko gisee tey. Ah, nag ñoom ñooy win xaw ma nag. Madou waaw ok jërëjëf yéen a ko moom waaw baax na léegi séddalement bi nag ñoom jeex parce que fu mu nekk nii tension bi mi ngi over high. seen seen yi gis Kele, I don't know. But I'm here to be doing Jamba Kele. Al Nyaya Jel. Who fame out Team USA and in Team Europe. Butum mala juma lebe winna bari ibeni sonte de nkai ko ibeni sonte mobe ba enjoy kan very very much. Hande kuta you know place is like home. It feels uh, uh, like um, biba kontaan rim ba ba ba kele nak pour uh, minata na min na jang al nyaaya jël kay ko al be nyaaya jël ba enjoy kanjam ba kele loudness andena ɗum acci ɓen fewe both teams loudness both teams mun ngeen a dugg ci biir parc bi loudness ladies rounders wole plate eh? football o bantale sai rounders team wala kana ɗum sai mi um, felentin sai wala kana ɗum nante eh? musolla wolti team ese anin team uh, europe wala kana rounders o play sai ngane jiɓe eh? malaw ɓe kela ñaadile it's like football majoñim bantale bare hani sa en uh, naaliyetanga na rounders o fana jiɓe o fana ɓe kela ñaame All teams around us, we're going to do a TV further, please. All teams sa ɓe ñamete um, roundas ɗiɗo wala koko kande pour yana ɗum fiilo kono say ane jibe malon aɓe kela ñaadila ɓe préparation on la say pour kana ɗum ñaajalel ti satol wati timi rafrati satol anen timi usa pour um, jiɓer lalmini yalan ko lebina jiɓerola nin men lafa tichat mina doron yewoɗila la domorol le woti

Two teams. One is. Voilà, naada yi ragalante. Ana ñeme wante wu leen. Ana ñeme wante wu leen. Dama mel ni waa Europe ñoo gën a ñeme. Dama mel ni waa Europe ñoo gën a ñeme. ayo, waɗino maɓɓi sello hacci kaw dafa mel ni waa Amérique tam ñoo ngi na ñeme aɗene wañino kayle ne ngeen bari da ngeen a wàññi ko ay support ñu ne ngeen génna play duga a yéen yéenay play waaye du yéen ñëpp yi ñu ñooy tamakat yi nag ak di cinq yéen di cinq par cinq waaye 11 xam nga suma bopp bi moo gis bu baax dama foogoon ne 12 la. yéen a gis lii mbokk yi a nah, ya, Somebody is asking ah. us to ah. show them the ah, ladies. Ladies ladies nak ñom betay xam nga like mbiri jigen and ga mom. Right still now guys kan, ni preparation we put ñoo dugg film bi fu it's like they are ready. get ngi film bi start round us bi. I'm a len ladies ladies yaa ngi ni na ladies yaa ngi nii ñu ngi dugg si fu mu nekk nii di ñëw star rounders bi ngeen a gis lii team USA ak team Europe xaw ma nag ñan ñooy win rounders bii nii parce que USA ñu ñoo mun yëpp ñu ne ñoom ñoo leen daaxa football ñoom ñoo leen daaxa rounders waaye xaw ma léegi ay tuuti play ba pare si la ñoo xam. ñi ñoo nekk di playground bi gaa ñu nii ci biir fiil bi dina gis lii waaye start agul ba léegi they're still on the preparation let's go dem Thank you very much, Fatimega. Momone, thanks Gambian Talents Promotion for broadcasting the event. Thank you so much. Nulilan Finekal. yéen leen fi nekkal di leen isil nag lu leen kenn isilut ah ku ma fay nag mu ne we go ask them who's gonna win laaj naa leen nag waaye nag um, America ñu ne ñoom ñooy win gis ngeen de. gis ngeen de gars yi ñu ngi prépare pour gis lii. waaye léegi tey match bi start nag su rek fu mu ni nii xam naa yéen ngi kumpa waaye su startee rek di ngeen xam yëpp naka la. Ladies, get ready. yi. soo duggee kenn wax. loxo waxut du am. Coumba Faye daal dafa mel ni moom USA la moo supporté moom team USA la bokka USA moom ñoom dañ am confident ba mu ëpp waaye nag ñu dugg rek si biir match bi seet. Why still now préparation we mu on ba tey gars yi saataaguñ might be, dañ leen bàyyi tuuti ba might be start Yeah. <laughs> ara nak ma jokko suma naataango bi Mohamed Mohamed mu dem woon maaj bi si fil bi rounders bi. Mr George. Ah, asalaamaaleykum mbokk yi ñëwaat naa nag ah, kooku nga xamante ne moom mooy Binta Cissé ah traité na lool lool lool. li nga xamante ne ah, loolu lañ fi ñëwee moom mooy cover event bi bi nga xamante ne moom mooy diaspora club ñoom ñoo ko organise léegi ni a now rounders game bi la gaay war a commencé rounders game bi nag ah ñu dugg si fiil bi nag ñu mun a gis li nga xamante ne mooy ñëw xew. Ah, ñun la Gambian Talents rek ah, ah, boo ñu toppee rek di ngeen gis li ngeen mës a gis fenn rounders game bi nag USA team USA ñu nii nag ñooñ ngeen di gis léegi nii seen coach ba nekk noonu nag di jox li nga xamante ne noonu lañ ko war a defee asalaamaaleykum suma sista na def <laughs> waaw du la wone kon dama lay laajte rek ah yéen yéenay ban team waat team USA yéen loolu leen di ñëw play nii leen di ñëw play rounders ok ball hand rounders maa ngi support nag bu baax a baax a baax waaw USA <laughs> jërëjëf kon nag ñu dem si ñi nga xamante ne ñoom ñooy ah, Europe ah, team Europe ñoom ñoo nekk nii ah, Brown di ñëw play ball hand round das lagi di new play Assalamualaikum semua sister na nga def yene nay ban team nak team europe yene team europe lol ni new play round das yow aji hadi from scotland aji hadi mune ñom ñoy team europe nak aji hadi Wow. oh bay ma won ko nak mom mune nak ku len gis nak nga xamne nak ñom stalé aji hadi yow fo nga ne nak di ngay win Oke. Okay. Mang Lendi support nak menyebelah support deh. Ah, iya.